fi doon di nice amul lu ñu xalaat làmb làmb dafa am ay dafa làmb dafa am ay deux pièces yooyu di nga nekk ci làmb ñëkk-ñëkkal kanam ñu ne ah, jàpp nañ ko sëriñ yi arrêté wala nga nekk ci làmb am na waxee sëriñ yi arrêté wala nga naan booyee ma xëpp dara man arafas bu bisu làmb ñu lu muy xëpp dama ko xëpp ma jàpp ko dara ko ci kàddu seen ma xam ne jeex na déggoo ma de ay damay xëpp lii ak du ma fi jaar loolu loolu loolu loolu loolu benn kàllaama bu ñu wax la rek mais ku ne xam ne guy bu war a bëri nit bu xëppoo saafara mu bëri yow loolu tegewul de open de presse kii bi lu ko waral tey dañoo nekk ci làmb te làmb dama boo fa tolloo dafa laaj bis bi lu mu laaj rek nga laaj ma am ay staff ñii duñu ma bàyyi ma fenn waxtaan ci naa ceeg ñoom man lépp lu ma def dama ci waxtaan sumay kilifa ñu xam ni open de presse euh, euh, point de presse bi mooy li xam ne moo ñu arrangé ñun ñu def ko am nañ bis bu nekk loolu rek mais du leneen loo xam ni moo tax ñu def loo ñu ñu def point de presse bi quoi sa combat ak Reug-Reug bi defee lépp cay def nga dem topp ma ñu dem kër ga dama blessé woon bi ma la toppee dem kër ga nga wan ma rajo yi avant ma gis ko sama bët sama may. combat bi di combat capital ci yow parce que combat bii mën naa ne. boo ko daanee am na fu bari fu mu la yóbbu ndax ñu ngi xalaat diggante Eumeu Sène ak Gouye Gui te li tax nga mën a yegg foofu combat bi da ciy ñu bëgg nga comme Gouye Gui li des ak dimanche soreetul sa état de yëg sa yaram lan la parce que bee da ngaa blessé woon nëbb ku ba bëre ñu wax nga da ngaa blessé woon bii lan ngay yëg ndax li des si dimanche bëreetul waaw loolu dañuy sant suñu borom bi wér comme li ñu daan yëg rek suñu wér gi yaram quoi waaw di yàlla bu baax naan tous de bois balaa dimanche buñ jot parce que doomu aadama moom Euh, comme li ko Tafa waxoon rek ñun mbëri amul benn mbër boo xam di nga bëri dimanche at amul mënoo yëkkati trois cent cinquante kilos di bëri amul nekk sa yaram mais loolu ak làmb am di wax ni daal nii may waxee nii sant yàlla macha allah tous de bois bien incha allah daal bu dimanche ak jàmm dina ànd ak samay mbokk ànd ak ñi ma war a àndal ànd waa Canaba waa Géejawaay waa Asegna waa Daaru waa Yëmbal au passage di nuyu suma suma ñaari dëkkandoo seen soutien baax na trop ci combat bi yëg naa ko muy Diop 2 ak général Malika muy ak général Malika li tax ma tudd leen nag samay dëkkandoo lañ su may rakk lañ général buy bi bëri mbéy ci ñëpp dégg nañ li ma doon wax ma ne su ma ñaari rakk yu bëri mbéy laa yéene ndam mais li ma wax général lu ñaaw ci caméra yi yàlla na ko mbéy ci daan far yàlla mu daan mbéy ci xaw demee noonu. mais teewul mu rafet ndax kàllaa nga ba ma génn moo tax mu rafet mais su ma daloon dara général am na fulla <coughs> damay bàyyi beneen bi Diop Diop salle bi lay entraîné fii Diop Diop su mu duggee salle bi dootul entraîné day rus may entraîné muy entraîné loolu cër mënu koo weesu ma am soutien ci combat bi moom am soutien ci moom général ko bu wér nag di leen ñaanal jàmm toog fee loolu code lañ ciy def après combat bi naa ko leeral code code code kot kot kot kot kot beneen question ma lay nuyu di la ziar waaw di la si wàccuwaay ko moo ko te mooy daal yooyu ñu léegi géej waa ñu lay déglu di la xaar bis bi nga xamante ne am nga yaat ma moo ëpp doole moom la yaakaar moo jël ñetti avance moo xam ne tax mu jël ko moo ëpp fit moo xam lu moo moo tax lu xam lu tax mu wax ko moo ëpp mbooloo gis nañ ko macha allah bëgg na te yàlla na yokk loolu duñ ko weddi. parce que ñun moom Ada Fass ñu ñun ñun ci la am kër ci la am oto bi ko Ada jox oto dama cee kontaan combat guy gi ci la Ada Fass am oto combat guy gi ci la Ada am kër loolu suma fierté la bu dee jullit laa man loolu laa ko yéene yàlla teg ko ci yoonu mu siraatal mustaqima ba fi ñu dégg moroom ñu dégg ko fa waaye du ci combat bii na jàpp li mu jàpp ba dimanche incha allah man ma jàpp li ma jàpp en tout cas wax ji yéeg ñu doon wax di naxante jeex na mi ngi ci koy man sama koy nice guy gi sori lañuy gis guy gi bu firi happy amul guy gi bu toog di ñëkk ñëkkal nangam maa ngi dégg sax am ñuy commentaire <coughs> naan dégg naa keroog da doon bëgg xawma lan moo tax muy jooy la ma doon tax may jooy ak làmb ça n'a rien à voir la tax may jooy ak làmb kenn ku ne xam ne man su ma duggee ci kër waa kër waa Sarr boo xoolee sama kanam mm. y a beaucoup changement rapidement da nga koy gis ndax fiñ ma tege yow xam nga ci dara mm-hmm. nit koo xam nii bi lay jàpp jàppe wuñ la nit mhm. ñu teg la nit jëndal la kër wutal la oto takkal la béy bi macha allah ki dàq ci soxla mbër yi ngay tukki dem di ñëw bañ mën laa teg nit kooku bay yox ci moom soxol bu tooyul doon nit ñu jël doom tuddee la sooy wax ci moom soxol bu tooyul doon nit yaa saanaa reenaaf ak lamb mhm. guy gi bii du guy gi bii jooy guy gi bii sëggi xool nit ñi rapidement mais amee pour dimanche incha allah ñoo xam ne guy gi biir ñëw <laughs> mu leer damay leeral ñu doon dagg vidéo yi di wax naan dafa am ñoo xam ne yàlla moo leen nattoo wax dañuy toog ratatata amuñu leneen lu ñu wax man su ma namee yëramtalu yàlla ma suul yóbbu ma cana ba mais ku jël Ama Baldé ki nga xam ne une minute bi boo ko tërinee mbër nga nga jël ko tracé ko bëreloo ko ba war public bi jàpp benn ko naan jóg leen jël ama neex yëkkati ko trois fois ci stade bi jël nees jël basoka jël cité bi mu la attaqué gauche bi nga ñëw def devant arrière di rékib ñëw ko nga jël nees nga xam ne dañ keroog bàyyi jow yàlla ko yàlla yërëm bi ñu ko jëlee dañ ni nees daa yaa ñoo doon ñaanal dañoo tiit nga tëjlu ko ak loxo bu loxo bu métti def naa loxo bu neen yi kon bu ma jëlee Ada Fass nga xam ni bépp gu la waroon bëree lamba waxul dëgg rek su ma tiitee man kon war a nañoo xool ban nit la wax wax wax day rafet nit bu fekkee ni sax yow li muy wax yow amoo dégg-dégg bu baax xalaatal fi mu jaar ku xamul maay kan man xam naa maay kan te bu dimaasee xam ni man dinañ xam ni man maay kan incha allah. maa lay fay. Hmm. Hmm. bu non bi muy aada da ngay jël Fatma ñun dañoo mag matir bien dañoo matir dañoo matir ama seen barki démb au passage ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla rafetal carré mu turmi ko jàmm bi muy wax barki démb bi muy wax ci benn coow bu ndaw bi ñu ko laajee lu wax wax dëgg yàlla duma ci tontu parce que bëgguma di wax erreur ñun foofu lañ toll man bi may toll niveau bi Ada Fass dama géré wax naa ko keroog mais da koo dagg moo tax ma dagg bu kuyéen ma kon ni géré bi mooy damaa jàpp su may mag teg leen lu mel ni man bi may bëri Mbaye Diouf signature ak Zos yëpp na ko indiwaat. amul ku ma ci teg lu yomb. Arafas xaj xajaat bi teguma ko ñooñu daaw ñu tontu may wax moom mooy wax man du ma tontu loolu rek la. loolu loolu fu mu àgg ba ak fa yóbbu. Guédiawaye ñëpp jàmm lañ ma yéene ku ma yëpp jàmm lañ ma loolu erreur communication loolu ñuy ñuy naxante rek ara li li ma doon wax noonu xam naa lu ko pire fuuf ci moom lu hors de làmb te waxuma ko su ma ko waxoon mun naa dox ci maayanam dëgg lay doon mais dama ko teg à su ma rakk la carrière am dama ko gàkkal dama ko rafetal parce que bëgguma mu gàkkee ci man mm-hmm. ku muy àndal ki muy wax mamar dama def sama émission bi ñu doon def bi ma yor taxi bi ma pare gis appel am xamee ma man la ma ne ko gannaaw de appel yi ma jot yëpp bii ma ci bi laa ci gën a kontaan mu ne sa émission bi rafet na merci my boy yàlla na yàlla defal jàmm barke alxuraan kon nga xam ne ñun duñ ay noonu kon du yoon tey may wax ci Ada Fass tey loo xam ne nii naan ko dama lay jaxase ak waa Fass wala may wax loo xam ne du ma ko def avance waa Fass am naa fay supporter ni may toogee sama koñ dégg boo yi naan ma Ada Fass noonu Ada Fass di toogee ñu naan guy rek lañ gëm loolu force la mënul ñàkk yonent bi bi mu wàccee bi mu ñëwee màkk daan ne xul wala dañ ko ne xanaa yonent bi yow da ngay te mooy ngeen gi mu yàlla moom la yónni ku ku yàlla bind ku tax yonent bi lu ko nit ñi wax yow da fool foon ñu ne am ñetti téeméer yàlla juróom benn fukk ak ñett suñu aajo fajul nga naan yàlla kenn la Mouhamed bu fekkee da ngaa dof dama sa sa baay faj la ak yeneen ak yeneen sagam Mouhamed moo amul woon loolu man guy gi mënu moo koo am li yonent yàlla Moussa amul woon mënu ma ko am ci gàttal ñëpp mënu naa bokk bëgg mais xamal yaay kan xam sa bopp xam fi nga jëm tamit mais géejawaay ñëpp pour mu leer question bi benn la barke alxuraanu karim moytuma kenn billaahi moytuma kenn te sama boo yi may toogal nii xam nañ li may wax sama bundu kër laay toog booy chaque jour ñu ni fanaan man fanaan pour lan fanaan pour lan barke alxuraan Arafaas li gën a bëgg Fatma Arafaas li mu gën a bëgg mooy mbër mu dem dal ci kawam man dama dul dal ci kaw mbër. sama doom sax ma dul bëri moom du ma dal ci kawam jàppal non déglu dama da nga wax ma tontu la sama doom caama mi gën a ndaw mi ma gën a bëgg ñaari doom laa mu jigéen ak bu au passage bi maa ngi koy nuyu sama soxna moom.